bokk jur ñu déglu ak bokki taalibe yi jot nañu ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci kilif teefu sëriñ Amsatu Mbacké moom sëriñ Chouaïbou Mbacké Khadimou ñu jëm nag ci bis bi ñëpp doon nekk bisub lan xasaayit ci njiital kan sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Abi ak mboolem kuréel yi nekk Ndakaaru muy bisu xasida Ndakaar bis bi nag mi ngi am ci grande mosquée Massalikul Jinaan kañ lay doon samedi 17 mars xaaj bu njëkk bi ñu waxtaanee dundub Serigne Touba ñaareelu xaaj bi ñuy waxtaanee xasida Serigne yi ñu ngi ciy woo nag mboolem jànkatu xasaayit yi ak kuréel yi ak rajiskat yëpp fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ci grande mosquée Massalikul Jinaan ci Colobane Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Abi ak mboolem kuréel yi Ndakaaru ñu ngi woo ñëpp nag ci bis ba bàyyiwuñu kenn bu ñu xëy nag 9h ci li ñuy tàmbale programme bi bët 7 ci ngoon ku ci bëgg am loola leer mën ngaa 59 53 77 534 62 53 77 268 03 07 77 324 01. nañ yem sëriñ bi fi ñu ko war a yem kenn ku nekk xoolal li la sëriñ Tuubaa defal waaye nag yow lan nga defal sëriñ bi. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahimi wasalaatu wasalaamu ala wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawbir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké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 yaa ngi bàyyi xel bis bi bu baax a baax a baax mbokk yi nag ñu nekk ci wàccaayu li nga xamante ni mooy liggéey bi jamono ji képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel xasida rek eh, nekk fii ci dakaar wala li wër dakaar yaa ngi bàyyi xel bis bi nga xamante ni Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi ngi koy ànd ak Serigne Amsatou fii ci Masaalikul naan muy bisub xasida boo xamante ni fu waay nekk ci réew mi daan ko faral di teew bi ak ci bitim réew waaye mu mel ni ñu ngi moom it mu doon borom xam-xam bu mag boo xamante ni ku ñu yàgg miin la ci eh, jataayoo Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Abi niki noonu it eh, loxo càmmoñ it ñu feggoo ci ak Serigne Adama Diallo ñu fas yéenee waxtaane li nga xamante ni mooy wàccaayu li xamante ni mooy liggéey bi waaye balaa ñuy guddal rek comme niñ leen ko waxee rek xam naa dañuy jébal gi Serigne Alioune Cissé comme niñ leen ko waxee mu doon borom xam bu mag boo xamante ni ku yàgg topp li nga xamante ni mooy bisub xasida bi rek eh, liggéey bu sell bi nga xamante ni mi ngi koy liggéey euh, ci bis bi waaye xam naa ne sëñ Alioune dañuy dikk ak ci euh, li nga xamante ni mooy njëlbeenub laaj bi nga xamante ni fas yéene nañ ko euh, laaj ngir bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmal muy bisub xasida bi mel ni bisub xasaayit njariñ li ci nekk lépp buñ ko doon waxtaanee fii ba sub fii ba keroog saat di taxaw duñ fi jóge waaye ngir laabire bokk yi nga xamante ni ñooy faral di bànneexu léeg-léeg ci bisu xasida yi fépp foo xamante ni ñaare bisu xasida ma nga fa rek murid yi am nañ passeef ak dogu goo xamante ni nañ fa fexe egg ngir xasida yi nga xamante ni it sëriñ bi moom la wax ne karaamaam moom mooy xasida yi kon ñu e, jàpp ne kon bu ñuy waajal bisu xasida bu mel ni ku mel ni yow yàlla na ñu toog ak yow jataay waxtaan ak yow ci xasida yi nga xamante ni moom la ñuy defal bis njariñ ji ci nekk lépp mënuñu koo tënk waaye nga indil ko bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew. bisimilah sëñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci laaj bi euh, bisu xasaayit nag day loo xam ne euh, da ngay laaj xasida ci boppam moom mooy lan ba noppi ngir nga xam bisu xasida ndax xasida mooy loo xam ni boo ko xasee xam dinga xam sëriñ bi ndax xaside yi mooy li nga xam ni moom la sëriñ bi wax ne mooy pàgguteefam mooy ab liggéeyam ndax sëñ bi euh, xaside yi mooy jaaruwaay bi mu jaar ngir liggéeyal boromam ak liggéeyal rasulullah sallallahu loolu nag euh, boo ko jëlee euh, ci ngay mën a xamee sëriñ bi ndax ndax mbind dafa nekk lu lu am solo ndax ndax mbind ci nga mën a xamee nit ki ci boppam ci ngay xamee xalaatinam ci nga mën a xamee dégginam ci nga mën a xamee dégginam euh, gisinam ci nga mën a xame itam euh, euh, projet bi mu teg ak moom fan la fan fan fan la jëm ak fan la wooye nit ñi moo tax mbind noonu loo xam ne lu am solo la loo xam ne lu mat a farataal la dama koy faral di wax saa su ne. ne bokk na ci ñi yaakaar sëñ Tuubaa li war a sante sëriñ bi li liñ fekk sëñ bi bind ndax bind euh, li tax mu am solo mooy dina dina dina dindi tuuma ci aji bind ji dina layal aji bind ji ndax bari na waaju baax walla euh, kilifa goo xam ne maanaam ñàkk bind tax na ñu waxal ko wax yoo xam ne kenn mënu koo dindi te mën naa doon ay wax yoo xam ni léeg-léeg du du du du du gën wala wanewul dëgg-dëgg kilifa googu lan la waaye nag e, te gis nañ ko ndax ci histoire islaam ba ci hadis sax loolu am na ci ñu ngi wax ay ay nangami junniy hadis yoo xam ne ay nit sos nañ ko dugal ko ci biir diine ji ne yonent bi moo ko wax te fekk wax ko kon. li ci ulama yi def yëpp ulama ahadis bi def nañ ci liggéey yu am solo yu bari waaye nag tax na loolu amul maanaam ba léegi pour wéeral yenn hadis yi jafe na kon nag sëriñ bi ñun buñ ko amee moom mu bind loolu bokk na ci liñ liñ ko war a liñ ci war a sante yàlla bu baax ndax mën nga ne lu bari loo ko mën loo ko waxal rek mën ngaa gis ko bind waaw sëñ moom bari na lu ñuy wax lu bari loo xam ne maanaam xëy na yaa fa àgg àggugul rek waaye boo di dox ba gis fu mu ko bind. lool nag bokk na ci li lu lu liñ ko war a sante bu baax a baax te loolu sax xëy na bala ñu koo xam ñu dox ba ci kanam ndax xëy na euh, jeexital sëriñ bi sax am na yu fi des. ndax mag ñi ànd fekkoon sëñ am na ci ñoo xam ni bi ñu fi jógee yàggul wala ñoo ñi ñaar bi ñu fi jógee yàggul ay doom bi ñu fi jógee yàggul ñoo ñëpp nag tey ji bu fekkee yu mel noonu gisatoo ko mbind rek moo fa war a des mbind moo fay des. te sëriñ moom dundam yëpp du koo bind. mbind mi nag euh, ay xaaj yu bari la bind na ci wàllu xam-xam bind na ci wàllu tasawuf nga xam ne dox ki mu dox jëm ci digganteem ak boroomam sëñ bi dox na ci diggam ak Rasulullah sallallahu alayhi sëñ bi bind na ci sëriñ bi bind na itam euh, leeral moom dégginam ci islaam sëriñ bi bind na ko maqaama yi am ci suñ borom sëñ bi bind na ko may yi ko yàlla jox sëñ bi bind na ko euh, lépp lu mu bëgg itam ci àdduna ni mu ko bëggee bëgg yàlla defee ne defal ne ko ne sëñ bi bindal na ko boppam loolu moo waral mbindum sëriñ bi boo ko jëlee lépp daf ci daje lépp daf ci daje waaye nag ba noppi bind nag yoo xam ni julli ci yonante bi salaa salaam rek la bind ci yoo xam ni tagg rasulaay salaa salaam rek la bind yoo xam ni màggal yàlla ak bàkk ko ak kañ ko mel ni tasbiya bind ci yoo xam ni istixfaar la bind ci yoo xam ni tawasul la bind yoo xam ni itam boo ko wàllu fegu la maanaam mucc aaru noonu la xasida yi bu ci tey xasida yi dañoo bari ay fànn yu baree bari yoo xam ne fu ci sëriñ bi toll rek ak lu ñu ci soxla rek sëriñ bi moom loolu la daan jëfandikoo lool loolu moo tax importance su xasida am solo ndax moom lépp lu mu daan rek da daan bind dafay da ko da koy bind ci diggam ak yàlla ak rasulaay maanaam bind ko ñaan ko la muy ñaan mu wax ko tudd ko looloo tax looloo tax xasida yi boo ko jëlee euh, jaamu yàlla la salaatu ala nabi la waaye itam projet de société la boo xam ne bii sëriñ bi lépp lu mu bëgg def na ko ci xaside yi euh, misaal mi mooy euh, Matlabul Fawzayni tey boo ko jëloon ni sëriñ bi bëgg li ñuy wax plan directeur bu Touba sëñ bi moo ko defal boppam muy Matlabul Fawzayni nga xam ni tey jii képp koo xam ni dangay liggéey Touba da nga ciy jukki rek ndax loo ci loo ci jël rek bind na ko waxal ko boppam waaye nag dafa li tax xasida yi am doole mooy e, tey boo demoon ci projet de société yeneen boromi xam-xam dañuy bind ay xalaat rek di xalaat deux mille nangam projet trois mille un nangam waaye wóorul ne dina am wóorul wóorul ndax du am ndax tënkuwul ci yàlla ndax nit ay toog di xalaat rek te xalaatinu nit mën na soppi ko waaye sëriñ bi moom waxuma la da ko da ko da koy wax ba noppi waaye dafa ànd ak ñaan ko nangu ndax da ko wax ba noppi ñaan ko ak boromam moo tax euh, xaside yi mooy mooy déterminer sëriñ bi doxuk sëñ tubaa ci fànn yépp xaside yi bayit boo gis rek maanaam ay maraaxil la marxal bu mu jaar la maanaam bind ko bu dee dox gi mu doon dox ci diggam ak boromam fu ci toll bind da koy da koy bind moo tax euh, sëñ bi li tax mbiram yéeme nag mooy euh, moom bi mu jëlee li mu bëgg ndax dafa xam ne projet de société ak yëpp day neex yàlla rek yàlla rek suñu borom rek moomu àdduna di ko doxale nu ko soob di ko soppee nu ko soob jërëjëf euh, Serigne Aline <laughs> xam naa ne dinañ ci dikkaat léegi ci euh, leeral yu am solo yooyu baax na ci bokk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ñu xam dëgg dëgg dëgg bis bi ñuy woote li nga xamante ni moo tax ñu koy woote muy xasida yi bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel wala ñi nga xam ñooy topp xasida yi xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy xasida wala ñu gën cee pasteefuwaat bu baax a baax xam naa ne sëñ bi dina ci dikkaat léegi ci njariñ li waaye comme noonu fi ko sëñ Alioune daanale sëñ aadama mu mel ni sëñ Cissé mi ngi ñu doon wax dëgg dëgg dëgg dëgg ci xasida yi mu mel ni xasida yooyee tey jii lañu ñu fas yéene amal bis mu mel ni ay weer yi ñu génn yëpp macha allah yéen a ngi ànd ak bokk taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk eh, ci ndakaaru gépp di defar ay tournée yoo xamante ni foo mbooloo nekk rek di safoo li nga xamante ni mooy xasida yi ngeen fexe teg fa seen tànk ngir waajal bis bi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi koy ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ak képp koo xamante ni yaa ngi dund li nga xamante ni mooy xasida mu mel ni ngeen ci wàccaay wu am solo suñu Adama Diallo. ñu ngi sant bu baax. ci laaj boobu nga ñu laaj sëñ Modou xam naa ni dinañ ci yaatal lu am solo <clears throat> ndax euh, sëriñ Abdou Lahad Abi ñu ngi koy sandaat bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amsatu mi nga xam si nii day jëwriñam di xaritam di soppeem di léppam di kilifaam mm, sëñ Abdou Lahad nag noonu la ko àndeek ak sëriñ Tuubaa yëpp liggéey bi noonu la ko àndee tamit maanaam mbooleem daayir yi nga xam si ni dañoo ànd ak moom bëgg sëñ Tuubaa bëgg xasaay di nga xam si ni ñoom seen liggéey lépp daa jëm ci taxawu ñooñi ahlu xasida nga xam si ni ñoom ak ñoom ñoo bokk lépp ndax sëriñ bi daa yaatu waaye liggéey bi nga xam si ni ñoom moom lañ ànd mooy wàllu xasida moom dañ ko ànd ak daayira yi nga xam si ne ñoo nekk biir ndakaaru mën naa ne sax damay wax Sénégal ak li ko wër su ma jógee ci Sénégal ak li ko wër damay wax ne ak bitim réew ndax kuréel gii di kuréelu kennal sëñ Tuubaa jaalibatu maraaxib sëriñ Tuubaa rek liggéey bu yaatu daf cee am liggéey boobu nag biñ ko dooree ba léegi nga xam si ni daanaka mën naa wax ne ndigal li mi ngi jóge woon ci sëñ Alaaji Baara Mouhamadou Lamine Baara sunu borom yàlla na yokk ay leeram bu baax dooli ko ay ngërëm bu baax a baax maanaam ndigal lii ñu ko jote woon ci moom defee ko ndakaaru ci ndigalam defee ko CICES e yaakaar naa def nañ fa ñaari at muy 2009 2010 loolu nag mooy wéy ndax bi sëriñ Sidi Mokhtar ñëwee yàlla na suñu borom yokk leeram bu baax a baax di ko ñaanal bu baax moog sëriñ Basiirou Baara suñu borom yàlla na yokk seen leer bu baax a baax maanaam liggéey boobu di ko yeesalaat maanaam ñu di ko defee. Euh, mu joxewoon ndigale ñu di ko def masaalikul jinaan yaakaar naa boo fekkee na liggéey bi sax tegoon nañ xeer bi waaye liggéey bi tàmbaleegul woon liggéey boobu nag ñu ngi ko yeggalee foofu nga mooy ndigalu Serigne Touba sëñ Sidi Mokhtar sëñ Abdoulaye ci ndigal ak sëñ Amsatou sëñ Sow bu ñu ànd ko ak taalibe yëpp ñu di ko euh, defee ca Ndakaaru waaw liggéey boobu nag mooy wéy ndax daanaka mën nañu wax ni euh, dañ ko ànd ak mboolem daayir yi nekk ci Sénégal maanaam waaye mboolem daayir yi nga xam dañoo nekk Ndakaaru ak bitim réew bu bis bi ñëwee dañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi ndax tournée bi nga xam si ni sax mën nañ ko ci tuddaale mooy sëriñ bi ànd gi mu àndoon ak taalibe yi nga xam si ni ñoo nekk ndakaaru gépp ndax daanaka saa bu ñu waxee bis bi rek ñoom ñëpp dañuy ànd ak sëñ ab laat ci liggéey bi wax dëgg yàlla di ci def seen yéene seen pëseef ak maanaam wax dëgg yàlla di yëkkati seen i xéwal di ko def ci bis bi wax dëgg yàlla bis bu melee noonu mën naa ne eh, kenn jiituwu leen ci ñoom taalibe yi sëñ yi wax dëgg yàlla kon liggéey boobu moom daanaka bi mu jege see sëñ ab Lahad defoon na tournée bu am solo ñu ànd kook mbokki taali bi nga xam ñooy kuréel kenn sëñ Tuubaa mën nañ cee tudd sax sëñ Aliou Cissé mi nga xam ne si nii euh, daan na ci liggéey bi doon ci jëwriñ ak sëñ Aliou Ndiaye Maraqib nga xam si ni moom tëggéej la féete euh, kër sëñ Tuubaa gi moo bokk ci ñi nga xam si ni ñoo yor liggéey bi bisu xasida booba ak yeneen jëwri ñoo xam si ni ku mel ni sëñ Lamine Fall mi nga xam si moom moo yor wàllu communication bi euh, mi nga xam si ni moom mu sëñ Amsatu Soyibu mu sëñ ab moom mi nga xam si ni moom sëñ Amsa mooy sëriñam nga xam si ni liggéey bi daanaka sëñ Amsatu euh, bi mu ko bi mu ko àndi sëñ blaat boobu ba léegi da ci soññ waa këram taalibe yi da ci soññ taalibe yëpp rek nga xam si ni noonu lañ ko ànd ak moom waaw bu ko defee nga xam si ne liggéey bi ñi ko bokkal daal yaatu na suñ doon lim dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy juum sax ndax mbooloom kuréel kenn suñ tubaa daal bi bi liggéey bi egsee ba léegi daal ñoom ñi ngi ci bay waaru yaatu tournée boobu nag dem nañ ci ndakaaru yëpp ñu ci ëpp ñi demul tamit sëñ bi ngi sax di jéglu bu baax a baax ndax xataayu jamono ji moo waral lool waaye mi ngi koy ànd ak maanaam euh, daayira yëpp waaw sëñ bi nag daanaka daayira yooyu yëpp ñu demoon dañoo àndaat ñun ci liggéey bi fas yéene sóobuwaat ci wàllu organisation bi ci wàllu wàccaayu maanaam liggéey bi yëpp maanaam liggéey bi nag yaatu na ndax boo dee xool ñu ngi ci waale sëñ Alaaji Mbàkke yu fay nga xam si ni moom lañu fekk di jëwriñ sëñ Tuubaa Masaalikul Jinaan ku mel ni sëñ Modou Mbaye Samb di jëwriñam ak sëñ Sylla Baye Fall ak waa ak ñoom sañ sëñ ba ñoom ñi nga xam ni ñoo féetewoo Masaalikul Jinaan ak mboolem daayir yi nga xam si ni euh, dañu leen di fekk Masaalikul Jinaan daayir Nuuru daayir ni ak euh, daayir euh, Masaalikul Jinaan ak ñoom may may sañ mi nga xam si ne ñoom ñooy ëllu jaalibatu maraaxib ba nekk foofu Masalik ñoom ñëpp lañ àndal liggéey bi ndax ñoom ñëpp bisu bu taxawee rek daanaka da bu bis bi njotee ndigal li ba fas yéene koo jëfee rek ñoom ñëpp dañuy sóobu ànd ak ñun ci liggéey bi ci organisation bi ci dalal gan ñi ndax daanaka kër yi ñu yi ñu wër Masalik ndaka jekk dañu daan abal kër ya ñu ciy dugal gan kilifa yi jóge Touba ñu leen ci dalal ci ndigalu sëñ bi kon loolu liggéey bu yaatu la xam naa ne dañ ci soññewaat bu baax rek ngir euh, ñi nga xam si ni ñoom lañ bokkal liggéey bi. ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax mooy mboolem daayir yi nekk ndakaaru euh, ñu gën a bàyyi war xel liggéey bu baax xam ne liggéey moom liggéey sëñ tubaa sëñ euh, sëñ sëñ Abdou Lahad dafa wax ne liggéey bi liggéeyu sëriñ tubaa la maanaam euh, xamul ki ci njëkk bokk ak ki ciy mujjee bokk ndax ñoom ñëpp sëñ tubaa rek a tax ñu ñëw ànd ko kon ñu ngi ci soññewaat bu baax a baax xam ni liggéey bi kenn ku nekk foo ci yem rek yaa ci yemale sa bopp waaye sëriñu moom yemalewu ci kenn fenn kon nañ ko ànd bu baax a baax fas yéene sóobuwaat gën a jaajuwaat xam ne liggéey bi nag liggéey bu bu bu am solo la ndax euh, dañuy fas yéene nekk ñoo xam si ni euh, dañuy wéy ci ndigal. ndax ndigal li mooy programme bi ni muy tëddee bokk na ci xam naa ni dinañ ci ñëwaat ci kanam waaye ñi ngi ci soñewaat daal di wax ne liggéey bi tàmbali na. ndax boo dee xool samedi bii di ñëw bu desee mooy bis bi kon nag dafay laaj ñi murid yi ak taalibe yi gën a bàyyi xel liggéey bi waaw te gën ci suubuwaat bu baax a baax sëñ Modou kon ñoo ngi jégalu ba ci kanam. jërëjëf euh, sëriñ Adama jàlloo ci kàddu yu matale yooyu xam naa dinañ ci dikkaat léegi moom it euh, mu wax ñu ci programme li nga xamante ni bis bi ni mu nar a demee ak euh, jamono ji nii ñu toll fu liggéey bi toll xam naa dañuy jébalaat sëriñ Aliou rek ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni mi ngi ko doon yëkkati waaye xam naa dañ koy jébalaat kàddu yi rek mu wax ak ñun ci solos li nga xamante ni nag moom lañuy taxawal muy bisub xasida njëriñ yi nga xamante xamante ni moom moo ci nara a bàyyeekoo yëpp ndax day mel ni fu ay murit yendu di fay yëkkati li nga xamante ni mooy xasida yendoo ko fa jàng ak alxuraanul karim loolee jar naa màggal jar naa woo waa àdduna sépp kon dañuy jébbal ak kàddu gi sëriñ Aliou moom it mu ñëwaat ak ñun ci suñuy beneen question. waaw xasida yi euh, bis bu xasida nag dafa nekk bis bu am solo ndax sunu borom dafa wax ni wazkurullah fi ayamin maadudaatin dégg nga ayaamin doo daati ni mooy bisu xasida yi ndax sunu boroom lépp lu mu wax rek dana am ñu ko jëmmal mooy na ngeen tudd yàlla ci ay waxtu yu ay ci ay jamono yu répété wu na sant yàlla fi ayaamillah maanaam tudd yàlla ci am bis yoo xam bis yoo yàlla rek ngeen koy jagleel bis yoo xam ne bisi yàlla yàlla képp moo ko moom ngeen gi ko bisu it sax ndax na ngeen sant dangeen ci sant yàlla tudd ci yàlla sàbbal ci sunu borom maanaam bis yooyu nag mooy bis yi te bis yi li tax mu am solo mooy kilifa yi dañ daan def lu mën a am dañuy woo nit ñi dajale leen ñu toog jàng alxuraan jàng xasaayit yàlla sunu borom dàqal ñu balaa bu doon am wala bu mu waroon am bu dee jafe-jafe nawet bu të wala ndox mu të ñu jàng ko kon xasida yi jàng gi ñu koy jàng rek day xëcc ay xéewal day fegit musiba ndax bari na musiba yoo xam ni waroon naa am ci réew mi daje gi nit ñi di jàng xasida yi moo ko waral ndax xasida yi lépp daf cee ne tuuba ngi ci jéggulu yàlla tudd yàlla tawasul def salaat al nabi lépp ngi ci te loolu suñ lu yonte sa sam dana ñoo fu ko ay nit di defee yàlla tiim leen di leen jox ay xéewal di wàcc ay malaayka ñu wàcc ci ñoom yërmande ba noppi yàlla di leen tudd ci mbooloo yoo xam ne ñoo gën ñoo gën ñoo gën loola loolu nag euh, tax na ñëpp war a xam ne kon bisub xasida képp ku fa jóg jëm yaa ngi jëm ci barab bu barkeel ndax bisub xasida bis bi barab biñ koy defee rek ba ba muy jeex barab boobu bërëbu sunu borom la war ma ju war ci jàkk rek day war foofu ndax dañ fay tudd yàlla di ko fi jigilu te xasaa itam yi lenn rek laa la ci jox ñun ñoo ko dul gis rek waaye lu leer la dafa wax ne xasida yi ci mawaahibu naafi wa far bi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam xay suquri at aw kutibat aw nuzir ilaha loolu waxi sëñ bi la doolu kenn wax moo ne fu ñu bindee xasida gi mbaa fu ñu koy yére mbaa fu ñu koy yëkkatee na yonent bi bég mbégtam yonent bi nag kenn xamul lum doon xan xamul lu mu toll ndax na njàqare xëcc na ndimbal kon am na ci xasida yoo xam ne moom ci boppam moo wax ne sax bi mu ko bindee malawul axlaaj ñoo ko jëkk jël loo xam ne nag malawul axlaaj jël nañ ko ba di ko ba di ko yëkk di ko di ko di ko di ko jàng kon xasida ga na malawul axlaaj yéen a ci am waaw kon loolu nag tayit mu teg ci xas ne sama xasida yi saa buñ koy jàng ars ak kursi yu day yëngatu mu ne isa katabtu farihal muzammilu wal xaade li mu ne jëmi li amul neen xasida yi ñu koy fu mu koy bindee rek man fu may bindee rek nee na yonent bi moom day bég te mbégteem yonent bi niñ koy ni ni mu ko bindee muy bég ba ta kasaay fuñ koy jàngee rek yonent bi day bég isa katabtu aw xaraxtu arwala iblisu fawran man ma amanta awala xasida yi fuñ koy jànge day dàq iblis kon nañu wóor ne xasida yi coow li bari na fitna yi bari na jafe yi bari na ci jamono ji waaye dara mënu koo faj nag loolu dellu si yàlla ak tuub te loolu nag dara gënu cee gaaw ni ko sëñ tubaa jaare ndax sëñ tubaa moom moom jaar mu jaar ci yàlla moo gën a gaaw moo gën a wér te loolu ci xaside yi la ko jaar kon fuñ luñ nañ ko gën a fonk bu baax jërëjëf Serigne Alioune Cissé ci kàddu yu matale yooyu waaye xam naa ba tey comme niñ leen ko waxee rek dañuy jox suñu aadama moom it mu mel ni bis bi jamono jii ñu toll ni fépp fu ab murit nekk rek ci réew mi ak ci bitim réew yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xam naa suñu aadama day dikk ak ñun rek ci programme mu bis bi ni mu nar a demee ak it waxtu wi ñu toll ni tembe mel nañ ne daayira yi ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax comme Serigne bi nag ni ngeen ko xamee suñu ablaat moom day mel ni fépp fu ab murit nekk rek di yëngu ci li nga xamante ni mooy xasida yi rek que fu ko nit ma sa woo rek dafay faral di dem ngir jëm sëñ tuba ak xasida yi kon buy def bi xasida yi séntu nañ mbooloo moo xamante ni tey jii it dañuy ñëw jàpp ci liggéey bi ngir jëm sëñ tuba ak it li nga xamante ni moom lañ ko xamee ci xasida yi mu ciy dox dox gu wér goo xamante ni kenn nattableetu ko xam naa suñu aadama dañ lay jëbbal kàddu yi rek nga waxaale kàddu yu mujj waxaale it eh, jamono ji fu liggéey bi toll dëgg-dëgg ak it programme bis bi nan ngeen ko waajalee. waaw comme sëñ ni ko waxee rek dama ci dolliwaat bu baax ki nga xam si ni daanaka mën na noo wax ne buñ ko tuddee mooy sunu lépp ci liggéey bi muy Serigne Cheikh Abi Mbacke ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér taxawaay bii nga xam sëñ Abdou Lahad moom la amee euh, di ci liggéey sëñ Tuubaa muy wàllu xasida yi ak ñooñu ahlu xasida yi moom mën naa wax ni jëwriñ la ci joo xam si ni moom féete na ko fépp ci loolu mi ngi ànd ak moom liggéey bi bu baax a baax euh, ci taxawaayam ci lépp ci wàllu taxawaay bépp taxawaay rek buñ ko waxee mooy ci lépp loo xam si daa mat a taxaw rek moom mi ngi ciy taxawu bu baax ci wàllu liggéey bi nga xam sëñ Abdou moom la yor muy sëñ Cheikh bi Mbacké ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér liggéey bi am na ci solo lool ni ko sëñ Cissé waxee. moom wax dëgg yàlla saa su ne buñ ko buñ gëstoo gis ko rek suñ xel day gën a dal te waxtu wu ne mi ngi ñu nag ci liggéey bi ñu ànd seen blaat muy liggéeyu xasida yi ak alxuraan xasida yi kon euh, moom noonu tamit la ñuy ñaanale soxna Njaxate mu sëñ Ablaat waaw moom it noonu lañ koy ñaanal ndax taxawaaye bi mu am ci liggéey bi ñu ngi koy gën a rafetlu tamit di koy ñaanal mu yàgg fi lool ba yéene li mu am ci yeneen ci liggéey bi yëpp sunu borom defal ko ci tawfeex gu yaatu bu baax a baax moom njaboot gi yëpp kon euh, liggéey bi programme bii nga wax <coughs> maanaam ñu ànd ko mooy bisu xasida bi nga xam la di le 17 la di gaaw bi ñëw bu delsee ñu ngi ci woowaat bu baax a baax maanaam jëwriñu daayira yëpp ndax jëwriñu daayira yëpp daanaka bi ñu sumbee liggéey ba léegi amatuñ maanaam noppalu bisu seen ñu ngi ko ànd ak ñun liggéey bi nag maanaam euh, boole bokk na ci jëwriñ yi nga xam si ne mën nañ ko tudd mooy lu ci am solo la muy wàllu waañ wi nga xam si ni ñoom tamit euh, jëwriñ yi nga xam si ni ñooy daayira mooy bu xuddos ñoo yor loolu muy euh, sëñ laay Diop ñoom it ay jàmbaar lañ ci liggéey bi ndax dañuy fanaan si ci wàccaayu xéwal yi maanaam wax dëgg yàlla ànd kook ñun ba ba set ñu ànd kook ñun ci lépp noonu la ñuy tuddee tamit ki nga xam si ni mooy jëwriñu daayira bi nga xam mooy nur daayira nekk euh, ginnaaw raay te jëwriñ ji sëñ daam Samb ci la bokk ñooy ëllu kafe ñoom it noonu ko ànd ak waa ëllu café gi nekk Ndakaaru ndax boo xalee daaw sax ëllu café ga nekk bi sax dañoo ñëw indi seen kafe jóge ba bi ñëw ànd kook ñun ku mu doon liggéey bu am solo sëñ Moolu loolu nag daanaka xéew li nga xam moom lañ ci def ba bis ba sax dangay ngay gis ñoo xam si ne dañuy gaare seeni oto yu ndox di ko indi di ko jébbal sëriñ bi ndax dañuy yëg bis bi xam ne bis bi lu ci waaye def sëñ Tuubaa nga ko defal loolu nag maanaam sëñ bi moom daanaka bis bu set ñu ci gis ay yéeme ndax da ngay sax koo xam si day ñëw gaari otoom jël caabi otoom joxe kon ne liggéey bi da ko cee tàbbal ngir saa boo xam si ne ngi ci liggéey bi na oto bi nekk ci yitte liggéey bi ba ba mat kon ñi ngi santaat bu baax ñooñu nga xam si nii dañ koy jëf te gis nañ ko bis bu set ñi ngi ci ànd ko ñu ngi koy ànd ak ñun daayira yi tamit maanaam euh, ñi nga xam ñoo ci organisation bi yaatu na ndax am na ci ñoo xam ñoo yor wàllu Euh, culturel bi maanaam wàllu durus xasida yi am na ci ñoo xam si ne wàllu alxuraan wi lañ jago ku mel ni ba nga xam si ni jëwriñ la ci liggéey bi <laughs> ak ñeneen ñu ma mën a tudd suma ko limee dafay dafay bari waaye ñoo ñëpp ñu ngi ko ànd ak ñun ñun daal fas yéene nañ lépp loo xam moom lañ ci daan def bu ñëwee ñu def ci fas yéene def lu ci lu ko ëpp lépp nag lay tegu ci ndigalu sëriñ bi ci nun ko nun ko gën di sellale rek fas yéene nañ koo defee noonu surtout loolu ndax ñi fay ñëw am na ñu leen fas yéene dalal muy wàllu accueillir gan ñi nga xam ñoo jóge Touba ñii di jóge eh, Kaolack ñii di jóge Casamance mën naa ne fu nekk rek dañ fay jóge di ñëw ci liggéey bi ñu ngi koy waajal ci wàccaay woo xam si daal dina gën mucc ayib ci lépp kon eh, am na ci ñoo xam sax ñaare dañuy fanaan si mën naa wax ne waa Touba ci lañ bokk ba ci daara fulku bi nga xam ni ñoo nekk Touba di magi taalibe yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax seen taxawaay ndax bis bu set dañuy jokk Sëñ Abdou ci liggéey bi ba daanaka bu ñëwee dañuy fanaan si ànd koog Sëñ Abdou Lahad nekk ci wetam di jàng xasida yi maanaam di ko def ngir jëmmi sëñ Tuubaa ànd kook moom magi taalibe yooyu yi nga xam ne ñoo nekk ndakaaru gépp it ñu ngi leen ci gën a woowaat bu baax fas yéene ko ànd ak ñoom programme bi nag day tàmbali ci bu 9h jotee ci suba mën naa wax ne 9h sax waaye 8h dina fekk gan ñi commencé jege si ñuy waajal euh, ci wàllu jëm ci ay xeeti ndékkeek xeet yu mel noonu ndax bis bi programme bi day teel a tàmbali programme bi mi ngi tàmbali 9h ci suba ba euh, nga xam si dañ koy fas yéene maanaam euh, ñi nga xam ñooy durus xasida yi ak ñi nga xam si ni ñooy kuréel ci wàllu kuréelu njàngum xasida yi waa Kër Sëñ Masamba yi ak ñi nga xam si ni daanaka dañuy rajos di njàngum njàngum benn benn fay am su ko defee waxtaan wi nga xam si ni nag moom la ñu fas yéene waxtaanee jëmale ko ci waxtaanee Serigne Touba ak xasida ak alxuraan loolu gannaaw tàkkusaan la daan lañ ko daan def te xam naa ni Serigne mi ñu ngi koy waajal bu baax gannaaw loolu tamit. <coughs> maanaam kuréelu Baye Fall yi nga xam si ni ñoo daan sikkar di taxawaayu ndax liggéey bi liggéey yi sëñ ak maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñu ngi leen ci woowaat bu baax ñoomit it dañ daan taxaw di liggéey ci wàllu turu yàlla di tudd yàlla muy wàllu Sam Fall bi ñoom it ñu ngi leen ci woo bu baax a baax liggéey bi moom daa yaatu gannaaw loolu nag maanaam moom la ñuy wéyal rek ba keroog sëriñ bi di joxe ñaan ndax gannaaw naanaam 9 euh, ci suba ba 10h ñaare fa lañ daan waa 10 ci guddi moom lañ daan ñaan. mën na ko weesu nag waaye nag mbirum sëñ Tuubaa amut waxtu woo xam ne dañ ko fa yemale ndax mbirum sëñ Tuubaa euh, ndigal rek la ñuy déglu saa bu sëriñ bi joxe ndigal ñu ñaan rek dañuy daal di ñaan wéyal ci euh, yeggale liggéey bi kon ñi ngi ci woo waa Ndakaaru biir réew mi ak waa bitim réew ndax ko mel ne Adja Kiné mën nañ ko tudd ci soxna yi ak ñeneen ñoo xam si ni ñi ngi bitim réew te doon jàmbaar ci liggéey bi bu baax a baax doon jàmbaar doon ñoo xam si ni saa su ne bu bis bi jegesee dañuy yëkkati seen i xéewal di ko tàbbal ci liggéey bi bu baax a baax kon ñi ngi ci woowaat ñëpp rek di leen ñaanal ñu ànd ceeg tawféex euh, di di di di di nga xam si ni liggéey bi nga xam si ni moom lañ bokk moom mooy daayir yi nga xam ñoo aju ci kuréel kenn Sëñ Tuubaa kuréel Jaalibul Maraqib Sëñ Tuubaa rek ñoom it ñu ngi leen ñëwaat ba bis baa ñu gën cee teel a ñëw te taxawu gan ñi bu baax a baax a baax kon sëñ Modou liggéey baa ngi noonu maanaam eh, kenn ku nekk ci ñun foo ci yem rek yow yaa fa jamono sa bopp waaye daayir yëpp lañ ko fas yéene àndal wuñ kenn ñu ngi woo ñëpp ci tuuru sëñ Abdoulaye Mbacke ak eh, sëñ Amsatou mu sëñ Soyibu ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp. ci ndigalu gannaaw ndigalu sëñ Muntaxa googu nga xam si ne moom la joxe ngir ñu defee <coughs> defee ko nañ ko daan defee ca Masaalikul Jinaan te fas yéene ko ànd ak jëwriñ ji nga xam si moom ma fa nekkal sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke yu fay moom noonu la ñu fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi kon ñoo ngi jégalu bu baax xam naa bu manqué ci ñun la waaye bu matee ci sëriñ bi rek la yàlla nañ ci dëppoo ngërëma sëñ Tuubaa xasay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Adama Diallo ci kàddu yu matala yooyu macha allah mbokk yi dégg ngeen ko nag euh, bis baa ngi noonu di dëgmal dëppook 17 euh, mars di doon gaaw bi ñu dëgmal bu dellusee incha allahu rabbi képp koo xamante ni it yaa ngi koy waaj rek bis baa ngi noonu di amee fii ci Masaalikul Jinaan waaye xam naa sëriñ Alioune Cissé da ngay tàgg bokk yi nga xamante ni ñoo ñu doon bàyyi xel ci jataay bi ci réew mi ak ci bitim réew di leen jox suñu yeneen jataay yoo xamante ni xamante ni mooy bisub xasida bi nga xamante ni kuréel kennal Serigne Touba jaalibatul maraaxib ñi ngi koy amal fii ci Masaalikul Jinaan ci njiital Serigne Abdoul Ahad Mbacke léppam di Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Sohibou xam naa dañuy jox Serigne mu nuyu mu tàggoo bokk yi nga xamante ni ñooñu doon topp ci jataay bi rek bu noppee ñu dikk génn kàddu yu tàggatoo. kay jërëjëf sëñ Modou ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bokk taalibe yi leen gërëm ndax li weesu lépp àndoon nañ ko ak sëriñ bi te rafetal ko Euh, di ñaan sunu borom nag lañ ci Cheikh Mamadou Lamine moom sëñ mu Fallu waxoon ne su ngeen ko defee ngërëmal sëñ Tuubaa mi ngi mi ngi mi ngi tege kon ñu ñaan ngërëmal sëñ Tuubaa googu ñu bokk kook taalibe yëpp di leen ci soññ nag ndax liggéey yàlla la liggéey yàlla nag lu ci waay def sa bopp rek nga ko defal man amee la saa leen fal na si kon nag ñu xam ne bis baa ngi noonu sëriñ bi moom da ko woote ngir sëñ xam gu ñu xam pëstéefam nag ak yitteem moo tax ñun ñëpp ñu laxasaayu ànd ak moom waaw muy suñu jëriñ nag di ko mat jëriñ nag wax dëgg yàlla ndax sëriñ bi rek moo ko ñor ni ko ñaanal yàlla taxawu ko yàlla dimbili ko wax dëgg yàlla kilifa gu neex àndal la nag wax dëgg yàlla ndax euh, loolu mën nañ koo seede ndax fukki at du caaxaan di ko sant moom itam bu baax yàlla dimbali ko ba fi mu bëgg a yóbbu liggéey bi yàlla euh, jàppale ko mu yeggal fi tam ànd ko ñun ñëpp rek. di sant bokki taalibe yi ñoom it seen taxawaay rafet nañ soxna yeeg ñëpp rek waaw ñëpp ku ci ne rek def na ci def taxaw na ci taxawaay bu rafet te yàlla rek tax mu ko def kon nag nañ xam ni bis baa ngi noonu di leen sant yéen tam bu baax média yi di leen sant yéen particulièrement wax bi rafet na ndax euh, mbirum sëñ bi tam lépp lu koy gën a yaatal rek loolu ci liggéey bi la bokk te wala communication foog naa da ci wala bu am solo ndax mooy tax ñu mën a xam maanaam li ñuy def lu mu doon ñu ngi leen ci sant leen ci gërëm bu baax ni ñaan yàlla barkeel seenub liggéey yàlla yokk ko ba mu nekk ay tele ak ay rajo yu yaatoo yaatu yaatu rek te lépp nekk ci liggéey Sëñ Tuubaa kon daal di sant bokki taalibe yi ci lépp loo xam ne juum nañ ci euh, mbaa wax ji dëng te nga koy jéggalu bu baax ndax lépp ñu koy waxee ci ki wax turu kilifa te wax wax ci turu kilifa daa xaw a dafa xaw a jafe waaye nag ñu ngi leen di leen di sant bu baax Cheikh Mamadou Mountakha yàlla yàggal ko ñëpp xam nañ pëseefam ak bëggam sëriñ Tuubaa ak yitteem sëriñ bi yàlla may ko ndam ndam foo ko njor defal na ko ñun taal taalibe yëpp te ànd ko ak moom dina ngeen jëf ñu leen sant leen gërëm. jërë ngeen jëf mbokk yi xam naa fii rek la ñuy yemandi ak yéen ci jataay bii nga xamante ni ñu ngi ko doon ànd ak yéen mu doon jataay boo xamante ni dañ ko doon laytaay lii nga xamante ni waajalee ko muy bisub xasaayit bi nga xamante ni kuréel jaalibatul maraaxib ñu ngi koy amal fii ci masaalikul jinaan ren ji nag dëppoo mu doon 17 mars di doon gaaw bi ñu dëgmal uh, bu dellusee comme ni ngeen ko gisee woon ni nag uh, ñu toogoon nag ñenn ci ñi nga xamante ni ay kele ci liggéey bi sëriñ ñu Cissé ak it uh, sëriñ Adama Diallo waaye ba tey jaajëfal jenn kenn koo xamante ni liggéeyam ku ne rafetlu na ko bu baax a baax a baax muy matière bi ñu nekk muy matière de communication Serigne euh, Lamine Fall mu ànd koo git euh, Serigne Mohamed Mbeng waaye suñ Lamine moom ñu ràññee ko lool ci pësteefam ci jataay yu mel nii ci ci ëpp solo mooy nekk ci suñu ginnaaw xam naa ñu ci bëri ku yàgg topp bis bi rek euh, ràññee nga ko lool ci li nga xamante ni mooy taxawaayam xam naa fii rek la ñuy yemande géen di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu المتين وما ولاها لخير در المسبل الإله bokk jur ñu déglu ak bokki taalibe yi jot na ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci kilif jeefu Serigne Amsata Mbacké moom Serigne Chouaïbou Mbacké Khadimou ñu jëm nag ci bis ba ñëpp doon nekk bisub lan xasaayit ci njiital kan Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Abi ak mboolem kuréel yi nekk Ndakaaru muy bisu xasida Ndakaar bis ba nag ngi am ci grande mosquée Massalikul Jinaan kañ lay doon samedi 17 mars 2018 daan fa amal nag conférence bu rëy xaaj bu njëkk bi ñu dunduk Serigne Touba ñaareelu xaaj bi ñuy waxtaanee xasida Serigne Touba yi ñu ngi ci woo nag mboolem jànkatu xasaayit yi ak kuréel yi ak rajo yëpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ci grande mosquée Massalikul Jinaan ci Colobane Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Abi ak mboolem kuréel yi Ndakaaru ñu ngi woo ñëpp nag ci bis ba bàyyiwuñu kenn bu ñu xëy nag li tàmbale programme bi bët 7 gëm lu la leer mën ngaa woote ci numéro yii. 77 441 59 53 77 534 62 53 77 268 03 07 77 324 01. nañ yem sëriñ bi fi ñu ko war a yem kenn ku nekk xoolal li la sëriñ Tuubaa defal waaye nag yow lan nga defal sëriñ bi.